waaw asalaamaaleykum baa Djily maa ngi lay fay maa ngi nuyu auditeur wasaaru làmb yëpp di nuyu Sénégal gi yëpp hmm, vraiment di nuyu axlu làmb yëpp ah, di rafetlu invitation bi di ñaan yàlla lépp lu fi wax yàlla nay lu jub lu fi dëng yit na ñëpp xam ne nit ku mate day wax rek. Mm-hmm. Eh, ñu ngi ñaan ñëpp. mbokk yi gis ngeen ko mobile 2 bu Grand Yoff lañu dalal fas yéene waxtaan ak moom lu baree bari ci wàllu làmb fan yi gis ngeen saison bi tëj na waaye mbër yi ñu ngi génn di def ay sorties. bëgg nañu def bilan ci lépp loo xamante ne xew na ci biir saison bi mobile làmb ji jeex na actuellement saison bi tëj na mbër bu tollaan fii bu saison bi tëjee ci lan lay gën a concentré wu. waaw wax dëgg yàlla mbër bu a toll fii saison bi tëj euh, yaa ngi concentré wu ci bopp xam nga. Hmm. am mbokk yoo xamante ne gëjoon nga fa am ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi lay jàpp ñu ngi la doon jàppale diira saison bi. Hmm. bariwul li ngeen daan gisante wala mun ngeen bañ a gisante saison bi ndax ni mu daan xatee. Hmm. tey yaa toppaat tànk dem fépp foo doon ñaan loo dem fépp foo doon liyee après boo ñëwee noppalu benn temps nag nekkaat ci entraînement yi hmm. saison bi. Hmm. entraînement yi ni muy demee c'est juste mooy période bii nii nii nii nga xam ne hivernal yi des na. gars yi mun nañ nekk di méngale di def benn séance rek moo xam bu ñu demee semaine bi yëpp ñu def ko benn séance boo xam ne semaine bi yëpp mun nañ koy nekk géej semaine bee di ñëw hmm. a jege saison bi di tijjeeku rek gars yi nañ mën a nekk ci li ñu war bu ñu la déminé. waaw mais hmm. boobu ñuy teg seen bopp teg ko seen bopp benn diir bi yow période bi ngay fekk ngay teg sa bopp benn intense bi day fekk ñoom carrément seen muscle yi nangu woon sa muscle mun na ko bañ a nangu parce que tamit entraînement budget la. Hmm. entraînement xaalis moo koy def ko hmm. yaram nga yor day laaj noppalu dafa am leneen ak leneen ak leneen lu sax yaram di laaj. Hmm. te yaram ak machine ñoo yam rek. ventilo boo doo ko taal nii boo ko taalee boo xoolee ngelaw bi muy dégager par rapport ak ventilo bu yéen doo tàkk ngelaw bi am na solo dañuy ñëw ci mobile. mi ñu xam mobile durant bi nga amee problème ci CNG bi wax nga ci lu bare bare bare mais mobile chaque fois dañuy gis su génnee dafay attaqué CNG bi gis nañ ko mel ni euh, Keba Kanté ñu koy nuyu au passage moom it bërki démb génn na dégg nga discours yi nga xamante ni def na ko tey boo doon def bilan ci diggante promoteur yi mbër mi ak CNG de lutte bi lan nga ñu ci mën a leeral. waa

moom Kéba nag dafa nekk benn nit koo xamante ni xëy na mooy li may wax rek des fois nit day am passion day am lu mu bëgg. Mhm. mais tey ku ne xam na ne bu dee lu mu dundee yàlla mu ngi koy dénk bu dee fu mu suturlu yàlla mu ngi ko koy dénk mais na làmb passion am la. te bi mu ciy wax ba tey waxagu ci luy yàq làmb luy defar làmb rek lay wax xëy na kay li ñuy demande rek mooy mel ne ministre bi bu ko mënee rencontré ndax lu defar làmb rek lañ bëgg te làmb soxlawul wàññi. est-ce que Kéba mën na yor CNG. sama gëm-gëm mën na ko yor. foo ko teg. parce que làmb du lu compliqué làmb du lu métti mais ku nangoo déglu rek ba pare uuf ñëpp mun ko ko yor mais day fekk nga am passion nga bëgg ko euh, beneen bi ci topp yaa ngi doon wax sama diggante ak CNG xëy na wax nañ te lu bari loo xamante ne war nañ ko ci wax mais te yàlla dafa dogal na ñun dañu bokk ci écurie yi. écurie yi tënkuñu ñu am licence yu écurie amuñu licence yu écurie individuelle wala lii licence yu écurie la ñu am. Mhm. Euh, léegi nag biñ ci defee sortie yi ñu war a def xëy na suñu écurie jóg nañ sol seen dàll ànd ak ñi ñu war a àndal di ci dox li war a dox. Mhm. wooñu ñu toog ñu ne ñu nag dañoo bëgg instant sorti yi ngay def yëpp nga arrêté ko ba ñun ñu dox li ñu dox ba pare te comme ñu tënkoo ci écurie ñu doon suñu kilifa liñ mën a def mooy liñ ñu sant ñu def ko. sorti yi lan moo tax écurie bi la ko day déranger CNG bi wala écurie bi dañoo bëgg ñu jéggal la moo tax li ngay wax. ñu ne yaakaar naa mun na nekk luy déranger mun na nekk tamit xëy na li ñuy dox ñoom moo àndul ak man façon sorti may def. mais pour ñëpp xamee ko ne rek loolu moo tax ñu toog dégguñu ma ma def sorti wala ma wax beneen bi tamit but bi nekkul chaque jour may def sortie la di wax li nga xamante ni liy sooxeel làmb la wala liy yàq làmb la wala koy saboté la. Hmm. parce tamit man samay wax xëy bu fekkee ci yow jublu mun nga ko jàppee attaque. mais koo xamante ni daf ci indépendant toog nga xam ne làmb rek ko intéressé bu ko dégloo dina xam ne kii luy defar làmb rek laay wax. Hmm. parce waxuma leen loo xamante nii pour sama intérêt hmm. euh, mobile ñu bari dañu ne li tax mobile saa yu génnee def attaque li mu am visa États-Unis moo tax mais boo amuloon visa États-Unis di nga yem fi sa moroomi mbëri yem tekk bi ñu def jaar ci yoon seen CNG bi teg leen ci yoon. waaw mais xam nga loolu tamit mun na nekk euh, mooy li may wax rek ñi nga xam ne samay wax xëy na am na lu muy déranger si ñoom. Hmm. beneen bi ci topp mooy man bi may génn di wax ay samay point de vue ci làmb dewuma Amérique beneen bi ci toom bu dee làmb Amérique moo tax may wax ci yenn ci làmb ji. Hmm. temps bi may def Sénégal ban njëriñ la may amal. man boo xoolee Amérique lu ma fa yàgg yàgg yàgg yàgg du ma fa romb trois mois mais mosuma ñëw Sénégal ci un an ma dellu États-Unis noo mën a def naa fa def deux ans wala dara bi topp bu ma demee ba wóor ba wóor ne làmb nekkatul ci sama xel nekkatul ci sama bopp tukki moo ma gënal lii nii mais temps bi may toog fii di wax nii perte la dama koy dem liggéey am leneen ak leneen lu ma am. kon visa bi moo tax nga nga bëgg moo ma solal. yow mi da nga bëgg làmb. man xaalis yëpp lew mais bu làmb moo ma gënal. yow mi da bëgg làmb yow. kese moo ma sonal ak attaques yi ngay def ci CNG bi ku bëgg làmb dina ko def. waaw mais ki bëggul làmb mooy ki gis ne mi ngi yàqu te yoonam newu ci. sam papa doon na wax naan boo fekkee ñaar ñuy xeex nga ne sama yoon nekk da ngaa ki mën. Mhm. féete kaw di dóor day sa mbokk moo tax nga ne sama yoon nekku ci. mun naa toog def ni ñëpp def man kese du ñëpp a gis ni muy déranger wo est-ce que ñëpp a ngi ciy wax mais xëy na man mu baax moo a intéressé moo waral may wax rek kese du leneen. mais wax nga fan yee gis ne ñaari ndaanaan génn ci làmb ku mel ni Gris Bordeaux ak Balla Gaye def sorti CNG bi dagg leen xaalis moom ñu mettit lu ko lool génn def sorti ñoom ñaar ñëpp ñu wax mais gisuñu mobile 2 ba léegi mu génn éppale ñooñu nga xamante ne ay nawle mbërëm lañu lu tax loolu. waaw yàgg nañ génn di leen épaulé mais c'est-à-dire boo gisee bi loolu yëpp amee ñu reculer rek toog mooy comme li ma la wax fekk na kilifa yi wooñu ñaan ñu nañ arrêté sorties yi ñuy def. Hmm. beneen bi ci topp mooy sorties yi du ren lañ ko commencé def dañu ko wax waxati ko waxati ko te ñun bi ñu koy wax exeegul ci ñoom ñu ngi ko doon def seen i rakk ñii di bëre ba pare dem CNG duñ fa am dara ñii di bëre boobu ñoom bu ñu jógoon jàpp si li ñuy kaas du egg si ñoom. Hmm. noonu la demee Sénégal nag buy taw ko am parasol rek da ngay waaxu romb sa morom. Hmm. loolu moo ñu solo lool. mais xaalis bi ñu leen dagg yoon la wala du yoon en tant que mbër mais xam nga tey warul egg si ñoom rek mu doog a ñàkk nekk yoon. Hmm. maanaam warul egg si ñoom rek mu ñàkk nekk yoon. li olof di wax naan ay du yam ci bopp borom ci loo ko xool rek danga koy gis. Hmm. loolu mooy li arrivé waat nii nii nii gars yi. Hmm. CNG bi tey boo leen doon conseiller actuellement saison bi tëj na war nañu mën a defaraat lu bare bare. ci wàllu làmb conseil yi lan la lañ la war a gën a concentré wu liggéey ci. nañu woo képp koo xamante ni ci làmb bokk. ñu toog ak yow nga wax leen seen point de vue ñu noté lépp bu ñu paree ñoom seen CNG ñu toog seen biir mais nañ gën a élargir affaire yi. Hmm. Kéba Kanté ak euh, nu mu tuddati Bira Sène hmm. ñoom ñaar ci ci bopp CNG bi nga yaakaar kan nga ci gën a am yaakaar. ñoom ñaar. Hmm. pour kan moo a doon gënal man wala. non yow ki la gënal moom Keba Kanté la. waaw loolu moom xam naa ko ndax sa xarit la. Hmm. mais est-ce que la euh, non sa xarit bi sa xarit la. Keba est-ce que xam nga ne ëpp na juróomi at gisante wuñ. waaye sa xarit la. li ñuy déggante ci at bi du mat ñaari yoon du caagante xarit. teewul man gis nga liggéey boo xamante ni. Bira Sène seen a ngi déggante. Bira Sène dañuy déggante. Hmm. suñu problème association yi li ñu ciy def yëpp man maa yëkkati sama téléphone woo ko suñu écurie bi mu amee problème ma koy réglé li ci kii yëpp man maa yëkkati sama téléphone woo ko dawal sama oto dem ba bureau ñu toog waxtaan c'est-à-dire man maa amul xarit ci loo xam ne mbooloo ko seex xarit da koy am ci li nga moom. Hmm. nga xam ne di nga ko mun a muñ. Hmm. di nga ko mun a baale. Hmm. mais li mbooloo moom boo ci xaritooyee rek di nga am ñoo tooñ. ni mu nekkee day ko waxee noonu rek après buy waree jàll buy jàll. Kéba dañu gis ni dafa yor ni mu mel ci Fatick. moo xam nañ doomu Fatick la mu ngi jàppale écurie Fatick. ku mel ni Mouhamed Ndao Tyson ñëpp xamoon na ni bul faale moo ko jiite. Mm-hmm. am na tànk bu mu amoon biir Pikine mm-hmm. ku mel ni Yaxya Diop ni ku ne xam na ni mu meloon Ndakaaru ak écrit séeréer ñoom ñooñu ñëpp dañu soxla woon CNG de lutte bi ñu gàntal leen ko est-ce que du loolu day nekk handicap boo xamante ni munoo bokk ci écrit wala nga bëgga a téye écrit ba pare en plus bëgg a yor CNG de lutte bi. waaw mais loolu du nekk argument parce que commissaire boo fi gis mi njaboot. Hmm. procureur boo fi gis mi ngi njaboot. Hmm. te njaboot rek lay àtte na lépp tege ci dëgg rek. Hmm. loolu du argument. lan mooy lan mooy dëgg bi dëgg bi mooy lan. dëgg bi mooy règlement moo ñu tënk. est-ce que am na projet yu mën a teg parce que Kéba tamit gisuma benn projet boo xam ni actuellement mu ngi def ay sorties teg ko ne CNG bi lii lañ war a changer lii lañ war a indi lii lañ am naa ay idée rek lay wax. waaw mais ay est-ce que ay projet bu nekkee lu mu teg. ne buñ ko defee laa mu dox bu ko gaa yi jëlee def ko dina ne amati na pour mu ñëw. mais ay idéem lay wax ay idéem bu koy wax ñi nga xam ne ñoo ngànk làmb te di kilifa yi ci kaw ñoo koy woo toog ak ñoom xëy ñoom bu tëjoog ñoom ci biir ñu waxtaan ak moom lan mooy ay projet mu wax leen li ay projet mu wax leen li mu gis si làmb bu leen convaincre mun nañ ko dénk. moom nee na ministre bi du ko mos woo parce que li muy def wala ni muy attaqué arrangé wul ministre bi est-ce que war nga mën a soxla kuréel boo xam ne mobile soxla wasaare te jiili moo ne wasaare chaque fois nga attaqué jiili est-ce que nga mën a wax wasaare. waaw mais xam nga bu fekkee lu mbooloo bokk. Hmm. problème mu ñaari nit waru koo yemale. bu fekkee moom daa am lu muy attaqué ministre bi loolu moom ak ministre bi la ñooy attaqué wante du problème mu làmb. bu fekkee ci ministre bi la kale bu mu jël problème am moo Kéba doxale ko ci digganteem ak làmb bu dee ci Kéba la kale bu mu jël problème am moom ministre bi doxante ko ci digganteem ak nañ xool lii njëriñu làmb ñu teg ko ci taabal bi ñu waxtaanee ko. Hmm. loolu moo ci am njëriñ mais am na loo xamante ne ñoom la concerné ñoom ñi am problème boobu. Mm-hmm. ndax lamb ji dix mille licences munoo fexe ba ñëpp bokk jikko munoo fexe ba ñëpp bokk nekk ay gaañan ñëpp wala ñëpp seq jàmm mënta ne ku nekk ak ñi nga mën a àndal ku nekk ak ñi nga mën a defal mais bu ñëwee ci cause lamb dañuy jël lamb teg ci taabal bi. Mm-hmm. xanaa xamoo tey man ci benn côté dama contre président CNG ni ñu koy tegee ci lamb. Mm-hmm. d' accord mu ko. lamb war na mën a dépasser niveau bu ñuy ñëwee toog rek xëy rek ñu ne ministre bi indi na jiili mooy président làmb yéen ñëpp nee leen waaw. loolu mosul am. waaw ah, mais nan la ñuy falee président. dañuy woo dañuy woo kuréelu làmb. Mhm. di leen recevoir ci bureau ministre bi gis nga ko ay photo yu ñu def. ku ci nekk ñu laaj la sa xalaat bu ñu paree ñoom ñëpp ñu tënk benn kàddu. indi président CNG teg. mais yow amoon nga rumeur ne am na kuréel bu ñu mosoon recevoir boo xamante ne defoon nañ choix ci président bi fi am. déedéet c'est-à-dire dina woo kuréelu làmb yëpp parce que loolooy li rafet. dañ see bokk. Hmm. mais day fekk ne am na choix am ba pare xam nga dèjà bi ñu woowee kuréel yëpp ku si nekk ak naan mun a nekk Kéba ñi naan mun a nekk Tadjane ñi naan mun a nekk Yékini yéen ñëpp ki doon président daf leen dikkee surprise. Hmm. làmb nag war na mun a dépasser niveau boobu noonu parce que làmb du foowukaay làmb structure la dix mille licenciés arène la am ay doom gis nga dix mille licenciés boo xamante ne ku ci gën a mbër mi ci gën a tuuti boor na juróomi hmm. nañ cër ci kon loolu tey lu ñu war a valoriser la lu ñu jërëtati teg ci benn matière la làmb war na mun a toll fu ñuy taxawee bàyyi jil ne daa bëgg a nekk président CNG kii ne daa bëgg a nekk kii ne daa bëgg a nekk ñu dajale ñi bëgg a nekk président CNG yëpp def ko lu mel ne élection tey mun nañ taxaw ne président écrit yëpp ay woote ménageurs yëpp ay woote promoteurs yëpp ay woote bu fekkee dañoo mu nekk benn affaire boo xam ne day mujj jaxasoo wala luy ba luy naqaree nañ ko defee noonu tey ñu ñëw woote ko ëppale ay carte nga raw nga jënd doon nekk président CNG mun nañ ko sax def ne mbëri mbëri yëpp dañuy woote mais dañuy taxaw rek ne élection yi. 10 000 moom mënuñoo voté. non en kay xam lu tax na la intéressé dañuy taxaw ne élection yi vendredi samedi dimanche la lundi dañuy compter mardi dañuy joxe résultat yi mbër mu bëgg woote woote yi arène nationale la wa ilaa woote yi fii la ñëpp woote ku woote ndax élection présidentielle sax am na sénégalais yu dul voté ji tamit dara du la ci dara du la ci fekk élection présidentielle am na sénégalais ji kon compliqué ñu dem candidat yi toog. candidat yi mën nañ nekk seen kër ñu voté ba pare compté ba candidat yëpp ñëw toog te télé làmb yëpp ñëw taxaw site yëpp taal seeni caméra ñu compté ko nii ci kanamu nit ñi ki raw ñu génnee say bulletin te compté la yaa raw nga nekk président CNG yomb est-ce que ñaari CNG mënul am jékki-jékki rek aadama jël benn kuréelam tabax këram def fa bureau ne moom mooy président CNG ndax gis nañ fi mu toll nii actuellement ci boo xoolee amateurs yi. am na président des amateurs am na président des jeunes amateurs gis nga association des promoteurs tamit promoteur authentique xaw ma promoteur bi promoteur bee est-ce que loolu indiwul jiixi jaaxa ci làmb ji écrit yi mbër yi tamit nga gis association des lutteurs du Sénégal ak association des jeunes lutteurs am boo xam ne sax ca nga bokk xaw ma association des pas lutteurs xaw ma lutteurs yi waaj a bàyyi bëre loolu est-ce que du du loo xamante ne làmb ji laisser aller bi dafa bari mbëri ni ñuy taxawaaloo ñuy dem fii ñuy dem fee yooyu tamit mobile da ngay ree ba tas waaw loolu yëpp tey boo gisee mu am ci làmb hmm. si ñi jiitu woon la gis nga bàyyi jiili boo xëyee xëyee rek nga gis benn nit ku taxaw wasaare ñoo yàq làmb hmm. wasaare ñoo lii wasaare ñoo lii hmm. réaction bu bàyyi jiili nekkul génn naan ko yow moom yaa yàq làmb yaa fi deful dara déedéet réaction bu bàyyi jiili moo war a nekk dem fexe toog kooku xam lan moo ko déranger ci wasaa ak lan la jàpp la wasaare di yàqee làmb mais Sénégal dañuy gis kuy génn di def sortie mais dañ lay bëgg a ñëgloo. maanaam mm. pour nga siisu si li nga ne. Mm. pourtant war na mën a bañ a nekk. tey suñu papa du jàncee ko moo fi nekkoon. Mm. bi mu yëgee ne am na luy raam di ñëw rek. warul nekk mu toog ne na xale yi dem dinañ xam ne man bi may nekk ci làmb nii ak nii. ñëpp ko nangul loolu. waxuma tamit loolu la def sama xalaat laay wax. moom mu ngi fi ba léegi. moom tey. Ah. mais waxuma tamit li may wax nii la def. mais tey bu xooloon na ñan ñoo nekk ca boobu di coordonné loolu noonu mu woo ci ñëpp téléphone parce ñoom ñëpp seen papa la ne hmm. a ngi taxawal association bu tudd xaw ma ñun ñëpp làmb moo ñu intéressé te war nañoo mën a booloo toog liggéey damaa bëgg a xam lan moo leen déranger ci li ma jiite ba tax ngeen bëgg a ber seen yoonu bopp. moom defu ko est-ce que yéen sollicité ngeen ko ci loolu. Hmm? dem ngeen woo ko téléphone ne ko président kat ñun yaa jiite amateur yi lii ak lii ak lii. moom xam man man bokkuma ci benn association amateur. mais dama jàpp dama ne laa li may xalaat ne li ma jàpp ne bu ñu ko defoon xëy na ñaari association yi mun na am parce que man hmm. jiite naa association jeune leader. Hmm. toog naa ma dégg am na benn association jeune leader buy judd. Hmm. mais sama téléphone maa ko yëkkati woo mbëri ma yëg ne bokk nañ ci yëpp ku ci nekk ma laaj la lan moo la déranger dafa am lu xew fii ci association bi nga bokkoon ba tax nga génn di def lii wala lii. ku ci nekk wax ma point de vue man leen léegi damaa bëgg ngeen dajaloo ngeen. dajaloo nañ. seen ànd boobu moom tas na. ñu toll nii ku ne waaw mais mais xëy na am na. am na ñoo xamante ne loolu moo lay wan ni nag ànd bi ngeen doon ànd est dëgg la loolu. du am na ñoo xam ne tas na wax parce que xëy mun na nekk mu tas moo leen di gënal. mais ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ñoo yor association bi bokk benn groupe bi di waxtaan ñun xam nañ ne tas nañ wala tasuñu ndax chaque jour si li war a déggante ñu ngi ciy déggante chaque jour si li war a nekk ñu c'est-à-dire nag faaw comprendre gars yi comprendre ne bu saison bi tëjee nit ñi mën a gisee golobaar ñu ànd. Hmm. bokkul ak bu ñu nekkee ci saison ku nekk nekk ICREM ku nekk am say boy yi leen jàppale ku nekk nekk ci préparé quoi son hmm. mais bu saison bi tëjee la ñuy waajal ñu gis wala bu nekk da nekk sa secteur mais li ñu war a liggéey parce que àdduna bi toll na foo xam ne fi mu ne nii aajootul sax gisante pour def li ñu war a def li ñu war a liggéey dañuy daje ci groupe bi waxtaanee ko à groupe bi groupe bureau amaan na dañ ciy daje waxtaanee li ñu war a waxtaan ñu tënk ñi ko war a doxal ñu doxal ko bu saison bi tëjee nag lépp lu ñu war a def dañuy ànd ensemble dem defi ko. Hmm. noonu la liggéey quoi. ministre bi dem nga ci ministre bi. ministre bi waaw demaguñ fa nag toogaguñ ak moom mais bokk na suñuy projet yoo xamante ne ni am nañ yaakaar ne bientôt toog dinañ pourquoi pas bu fekkee làmb moo ko ah, intéressé da ngeen di génn di attaqué rek attaqué ministre bi attaqué CNG. Hmm? attaqué ñëpp ñu leen di recevoir. waaw mais sa doom sax di nga ko gis si boolu añ ko joxe dépasse muy jooy du da nga koy ñëw dóor ne ko lii laa am da nga koy laaj lan mooy comme mooy ministre des sports gis nañu bokk ci sport bi am na loo xam ne ñu ngi koy kaas. Hmm. gëm nañ ne dina toog ñu laaj ñu li ñu déranger ñu wax ko li ñu déranger. Hmm. loolu nee nañ mooy ministre bi gën ci wàll sport ci Sénégal nangu nga loolu. est-ce que amul ñu mu gënal ci wàllu sport ci Sénégal. non ñëpp nee nañ lépp moo ko fi indi. xam nga dafa am benn wax bu may wax des fois. Hmm. damay wax ne réew mi xuloo ko fi. kii dàq way kii a ko. Hmm. kii a ma dàqal way ñoo xam ne li réew mi bari bari bari jàpp nañ ne Cheikh Lo rek a mën a way te yow doo ko déglu. Ah. man du ma ko déglu. Hmm. mais ministre bi fi mu toll nii yi ngay wax ni yëpp dangay ngay da daw fa may wax. ministre bi mooy seul ministre boo xam ni li Sénégalais yëpp wax mooy avant l'indépendance ba tey mosuñoo am ministre des sports bu mel ni Matar Ba indi na fi Coupe d'Afrique indi tabax na fi arène nationale tabax na fi Dakar Arena def na fi ay yeneen terrain basket bi basket bi stade boobu tamit yëpp defar na ko te mu ngi liggéey mu ngi def ay jéego li ngeen musul am muy Coupe d'Afrique indi na ko fi kon kay bu ma nee la mooy meilleur ministre xanaa di ko nangu. waaw xam nga euh, dafa am loo xamante ne nii nekkul lu ñuy tàggee doomu aadama. Hmm. chaque koy wax. Sénégalais nag ba tey lan lañ war a taggee doomu aadama ak lan lañ war a ñaaxee doomu dafa am yenn sénégalais yu ko xàmmeegul da gis ku yóbbu yaayam màkk ñu koy gërëm. ñu koy gërëm. da gis ku wàccee papaam dépasse ñu koy gërëm. Mhm. maanaam loolu moo xaw a sonal. dafa lu nit war a def nit li mu war a def bu koy def gërëm amu ci. Mhm. xam nga kañ liñ naan diw daa baax ci wolof. Mhm. mooy sa mbaax romb fa nga bokk. Mhm. baax mi ngi tàmbalee bàyyi jiili ci dimbalee koo xaarul ci moom lenn mais amul lu doom di defal yaayam ba mu doon ndam amul. Mhm. bàyyi jiili doom du am ndam ci waajur. loolu lu mu jotee ak li ma la laaj. ci waa kay dama la ciy jox exemple ba pare ñëw ci li ma laaj. li ma laaj mooy li ñuy lim yëpp lu ministre war a def la bu ko defee kay mooy wàcc na. du lu ñu koy gërëm liggéey lañ la sant. Hmm. booy liggéey luñ ciy wax. ah léegi kon boo sàccee kay la ñuy ko félicitation comme comme liggéey na. tam nangu nga ni liggéey non xam nga mooy li ma wax sànq. mbaax a ngi romb ci jéggi fa nga war a baaxee baax fa ba mat fa def ko feneen liggéey bu dekkee moom bàyyi ji lii muy def nii bu ci defee interview bu jaar yoon jarul jërëjëf parce que bu jaar yoon la war a def lu jaarul yoon waroo ko fee def. Hmm. baa dégg nga ma. Matar Ba li mu def la war a def loolu munu cee am luñ naan ko doo nit lii lii la war a def lii lañ ko falee ah ou hmm. ñu la boo ko defee lu ñuy ci yow. dara li ñuy xaar kay mooy ñu fa maanaam li nit ñi di jaawale boo déggee ma lay loolu mooy des fois da ngay dégg ñu ne kii dafa jub dañ koo fal mu liggéey ba bàyyi liggéey sàccul. Hmm. loolooy jub ñu fal la pour nga liggéey nga liggéey ba pare ñu ne jagaa jub liggéey lañ la falee di dañ laa falee woon pour nga sàcc. jeex na cest à dafa am lu ñuy rëyal lu rëyul mais tuutiwul ci nguuru Matar Ba la yàlla tombeek Sénégal di jël ci Coupe d'Afrique jot na. Hmm. damaa toog ak benn booy barki démb ñuy waxtaan mu ne ma yow da ngaa xaw a compliqué fi ngay xalaatee. Hmm. booy bi ne ma yàgg naa leen wax Sadio Mané ñuy jox Coupe d'Afrique. Hmm. ma ne ko dëgg la. mu ne ma ma ne ko ñaata Coupe d'Afrique la ànd ak moom mu ne ma temps ma ne ko ñu perte ñaata mu ne ma ma ne ko Bamba jël moo ñu ko jox. dara. première année baa Dieng la ñëw ñu jël coupe d'Afrique moo ñu ko jox. waaw kenn mënu ci dara la ko jox. parce que équipe la mhm. day am loo xam ne day jot ñëw. finaalu nañ ko perte nañ ko El Hadj Diouf deux fois ballon d'or la. Henri mhm. Camara 31 bii la fi bàyyi. Mhm. ñu ngi koy doog a dab. Matar Ba nekk na ministre boo xam ne ci nguuram. yàlla daf ci tombeeg lu Sénégal doon rêvé lu bari ñëw. ñu am fi stade boo xam ne mun nañoo accueillir équipe bu ne. Hmm. am fi arena pour basket mun nañoo accueillir ku ne. Hmm. am fi arène nationale mun nañoo bëri heure bu ñu neexee. Hmm. coupe d'Afrique ñëwaale fi ñuy ñaan mondial bi topp ci. loolu mooy liñ doon xaar ci moom. lan nga doon séentu ci moom te gisoo ko jàpp nga ne lii manquement ministre des sports la. mooy dafa am des fois yu bëri yoo xam ne da koy dégg du la neex. parce que dal dëkk bu mel ne Sénégal. ñun ñëpp toog nañ fi dégg équipe nationale Sénégal dem na basket ji. Hmm. dem bañ fekk jour yi seen chambre yi guddi ne leen trente minutes moo la fi dese da ngeen di génn ñun ñëpp dégg nañ ne góor gi seen jaay moo jël xaalisam fayal jour yëpp hôtel. Hmm. ñun ñëpp seetaan nañ équipe nationale basket di basket fii Maris Ndiaye. Hmm. ñu arrêté match bi lan moo tax day taw stade bi yëpp ay seen. mais tey sant nañ yàlla yu mel noonu yu bëri mi ngi saafaru ah, ñaan yàlla mondial bi ñu jëm Qatar mu bokk ci war ñëw Sénégal parce que mun na nekk. équipe nationale bu làmb ji nag. équipe nationale bu làmb ji nag wax dëgg yàlla des fois damay jàpp ne gaa dañ leen di xaw a fàtte. te nag dañoo bokk ci équipe nationale yi nga xamante ne nii demuñu ba indi deux ñoom pire rek la ñu wax nga basket wax nga football waaye làmb naroo ko woon tudd. non du naroo ko woon tudd sax. ah kër yaa ngi noonu. tey parce que ay damay gis booy dañuy dem jeux jeux olympiques. Hmm. bëri ji biñ fay mujjee dem booy fay moo jël médaille d'or. Hmm. mais Boy Faye nee na moom ki mu daan bi mu ko daanee kooku day daw di zibilé ba Boy Faye da kaa ni ko yow looy daw man médaille d'or laa am yow daan naa nga am waaj na ko man bu ma ñibbee fi gën a seer suñu dëkk lañ may jox kër te waaj moo daanu. Mhm. ñoom booy Faye bi ñu ñibbisee nee bi ñu egsee aéroport équipe nationale bichérie bi football bi dañoo ñëw ñu yeb leen seen bis ñu dem. Mhm. karaté bi noonu mais ñoom mbëri bi ñu ñëwee ku si nekk da ngaa jël sa saak toog ñii di woo seen xarit bu yor kalandoo ñii di yor woo seen xarit bu yor loolu noo ko mën a ah ni ma ko mën a jàngatee mooy nañ leen delloo li ñu moom nañ leen jox cër gi ñu am. kon bu ñu bu ñëpp taxawee ne état bëggul làmb da nga ciy ànd. non hmm. du lu may ànd. léegi lan moo tax kon loolu lan nga ci mën a jàngate. ok li tax du damay ànd ci bëggul làmb mooy dama naan deful li mu war a def ci làmb daa war a gëstu jàpp ci làmb lim ci war a jàpp lim ci war a jàppee nag mënul jox licence yëpp xaalis mën na ko sax ndax bidé boobu mu ngi fi mais du lu muy def. mais nag am nay produits étrangers yi fi nekk yoo xamante ne nii am ay tax yu ñuy fay ci réew mi yoo xamante ni état mënoon na leen conditionné noo xamante ne nii dinañ mën a dellu si waat revenir ci sponsor. nga ragal ah kañ nga ragal. man waaw. bokkul ci man Saalum Saalum. laa yaa ngi wane ragal. non bokkul ci man. non boo gisee état bëggul làmb bu ñu ko waxee. Hmm? mobile war na ci mën a ànd. mooy drapeau chef de l' état depuis kañ yaa ngi koy seetaan. Hmm. mos ngaa gis benn chef de l' état bu ñëw ci drapeau chef de l' ak li ci mbëri di dund. équipe nationale bu làmb ji gis nga chaque fois bu ñu demee trophée yi ñuy indi mos ngaa gis président bu leen dalal. xam moo tax ma wax la li ma lay wax nii. Ah, da nga war a hmm. mooy bu fekkee ñi nga xamante ne nii seen kàddoo yegg ci noppi état. Hmm. ñooy taxaw naan ko aajowul yëngatu lépp a ngay dox. munoo ne état bëggul làmb te état li ma la wax nii lay dégg ci làmb mooy ña fay dem. Hmm. ñamuy wóolu ci wàllu làmb. mosu ñoo toog ba ne ko làmb lii sooxe na ci. waa jërëjëf rek lay dégg. munoo ko wax bu fekkoon nag ña fay dem ña ngi koy wax lañ ko war a wax mu dëgg tànkam ci li mu dëgg tànkam deful da ngay xam ne bëggul mais ñoo fay dem ñoo koy wax ne lépp gonga mi ngi dox loo ko mën a wax bàyyi jiili fii la toog demul Grand yónnee ne dem leen xoolal ma Grand Yoff ndax ndox maa ngi indoone gars yi ñëw ne ko Grand Yoff lépp nice boo yaa ngay fubal dëkk bi nice ndox amu fa dara amu fa lu mu mën a def da mën a wax bàyyi jiili bëggul Grand Yoff ma doxal sama tànk ok mais nag bu boobaa day fekk ne bàyyi jiitu loolu rek la ngànk mais état moo yanu Sénégal. état li ko dal ci ñaari ñaari yi romb. xaaral ma ñëw rek président war na mën a génn dem. xaaral ma ñëw rek bàyyi jiitu expliqué état Sénégal la yanu xam ne mënul dox lépp mu jël balance bu nekk am ñu mu fa dénk ñu koy doxal di ko rendre compte. ku ci nekk nag lañu la war a dénk yaa ko jël war a jël def ko jaamu yàlla lu ci sooxee nga ñëw xamal ko ne eh wàllu yu doxul mais dama ne la état ñi koy ñëwal ci làmb di ko demal amul fu muy dégg ne làmb am na ñu siy sooxe dañ koy gëmloo ne làmb fi mu ne nii ay budget milliards lay wàcce làmb day naaw doxatul léegi mi ngi naaw loolu lañ koy gëmloo loolu lay jot ba pare image yooyu lañ koy indil image buñ koy yóbbu rek mooy image bu làmb neexee ba toj loolu lay gis tey mënoo leen ŋàññi ci loolu. Hmm. ba pare ñi nga xamante ne nii nii nii nii nii mun nañoo wax loo xamante ne nii mooy sooxee làmb moo koy lii moo koy la te mun nañ see jot seeni wax dañu koy dagg du yegg. kon yow bëgg wax sa wax yeggul non waxuma samay wax yeegul. yegg na kay. dama ne ñi nga xam ne ñooy wax li nga xam ne mën naa toog seen. ñu mel ni yow seen i wax dañ koy dagg ñu mel ni yow. non man jàpp naa ne samay wax. yegg du pour ñu mel ni yow mobile. ñu mel ni yow ñëpp ay xaritum ministre des sports la. est-ce que nit mën naa nekk sa xarit ba pare bu bu bu lajjee ci mbir nga ne ko ministre kat lii ak côté bi ak côté bi ànduma ci ak yéen ndax yéen ñëpp majeure partie bi yéen mbër yu mag yëpp ay xaritu ministre bi kenn ñemewul génn def sorti wax ministre bi kat ah dénk nañ la léeg léeg li waaye làmb côté bi ak côté bi ak côté bi si waxee. waaw xam nga man xam nga man sama zaari moom. nee na wax naa la ko sànq sama début wax mooy man xaritoowuma ci lu mbooloo bokk beneen bi ci topp mooy Matar suñu ministre la mais du sama xarit du sama xarit mooy travers télé xam naa ko travers télé xam na ma mais bu dul loolu du sama xarit ñu leen. du ngeen déggante téléphone du ñu déggante. mosoo dem bureau. non non. yàlla dimbali na ma ci yooyu nag comme xëy dem bureau diw lijjanti sama bopp dem bureau diw non man yàlla dimbali na ma ci yooyu mais dama ne la. ban problème nga am ak ministre des sports. dara. lan moo tax mu ñëw Grand Yoff ñëwoo fa sa moroomu nawle mbër yëpp ñëw gisuñu fa mobile 2 te yaa nga woon Grand Yoff. mais parce que yëguma ko. lan moo yëgoo ko. parce que yëguma ko munuma toog sama kër nii rek tëdd rek ñu ne ministre des sports ak rek ma jóg sol sama daal dem bu ma demee ci lan laay dem. ñëw ministre sport xaw ma ndax tudd la ñëw xaw ma ndax dëj la ñëw xaw ma ndax mariage la ñëw ma nga fa rek nga dem boo demee loo buñ la la waxal looy wax man yëgu ma ne ministre des day ñëw Grand Yoff ma ko yëgoon nit damay dem ndax man ku dul ministre des sports day xewle ma yëg ko man aw ba nga xamal moo man dama am gëm-gëmu ne kaase yi wutee rek mais ku xëy guux. dëgg la man loolu laa gëm. Adama a ngi nii ay garabam la naan léegi. te kaas la rek kaasam daa wuteeg sa bos rek <laughs> yow café nga def. dëgg la loolu la demee. Hmm. ñii dañuy xëy def kaas fonde. Hmm. kaas yi wute rek mais ku xëy da ngay guux. dëgg la man aw ma complexe su diw wala diw wala lii. moo tax des fois sax da ngay jàpp ne kii dafa am luy nekk ci ginnaawam pour mu wax wala du dara mooy man damay jàpp ne mun na métti ci deux ans mais wiiri wiiri jaari ndaari ci dëgg lay mujjee moo tax nag bu dee nekkee tey damay wax dëgg ji. pour en na métti na yàgg na lii mais bu ñu mën ay virer ak fu mu mën a doon dañuy dellu siwaat ñëwaat ci dëgg gi day yàgg rek hmm. ñooy gën a guddal bi rek wiiri ba xam ne bu ñu ñëwee dañuy bëgg ci dëgg gi ñu ko newaat di wiiri di wiiri mais dañuy ñëw hmm. am na solo xam naa ni loolu moom ci wàllu làmb la mais dinañ génn tuuti xaw a cofal gars yi ci ci société beeg yu mel noonu mais actuellement ci wàllu làmb lan nga bëggoon wax te laaju ma la ko te nga wax ko waaw wàllu làmb na xam nga làmb moom dafa nekk mbir moo xamante ne xajul ci benn émission. Mhm. chaque jour dangay waxtaanee pàcc wii rek bu subaa nga waxtaanee pàcc wee. Mhm. moo tax chaque jour ni nga ciy jour ak fi mu lay dikkee. Mhm. chaque ni bëggoo ko cee gis chaque jour nga dégg ci loo xam ne bëggoo ko cee dégg. waaw mais c'est juste rek mooy li ma instant bi saison bi tëj na. temps am na pour ñu raconter ñëpp ñu jàpp ne seen xalaat baax na ci làmb. ñëpp ñu jàpp ne seen xalaat doy na nit ñi ci làmb. kon nañ fexe raconter ñëpp waxtaan ak ñoom. ndax làmb yëfu kenn wax naa ko ma ne. léppay lu lu lu ne nga ca. lu léppay ku ne. lu ne ku ne nga ca lépp ñëpp nga ca. waaw <laughs> ah, dëgg la léegi maanaam. tey làmb Baye Djily dafa war a toll ci level boo xamante ne nii. non da ngay ñëw dugg CNG sax ne damaa ñëw renouveler ci licence ñu ne demal bureau temps damaa ñëw régulariser combat ñu ne demal bureau temps. am na fa. damaa ñëw wut si date ñu ne demal bureau temps damaa ñëw dugal ci recours ñu ne demal bureau temps. am na fa damaa ñëw wut ci lii ñu ne demal bureau temps. am na CNG mais Baye Djily ñun ñëpp ci làmbu ji lañ nekk. Ah. xam nañ nga ne lii ma lay wax nii yëpp am na CNG mais bureau benn nit la nekk benn nit a koy doxal est-ce que laa mun na toll foofu. déedéet. lañu wax dañ ne làmb structure la. Hmm. làmb dafa war a toll nga ñëw di renouveler licence ñu ne la demal bureau temps nga ñëw di wut date ñu ne la demal bureau bee la ñu joxe date yi recours laay dugal ñu ne la bureau bee lañ koy joxee damay régulariser combat bureau bee lañ koy joxee damay déposer reliquat bureau lañ koy joxee daa am ku may ñëw bindal si temps daf maa tooñ dama koy convoquer ñu demal bureau temps. Hmm, hmm. làmb foofu la war a toll bu ko defee maanaam Sénégal nag foo dem mun naa am korompo ak lii ak lii mais gis nga dama lay xam ne la hmm. fu dix personnes di liggéey dina am ñaar ñoo xamante ne duñ seq dara mais buñ sequl dara xam fa la ñuy muñ a koñante ci liggéey hmm. ko defee liggéey bi day mën a def nii mais li ma lay wax nii yëpp boo koy wut ci benn nit ngay dem ci làmb nit ku nekk nit nga am na lu xajul ci bopp kon a jàpp ni CNG bi dañoo war a renforcer waat dañ ko war a dolli mooy li ma wax sama début wax nañ ko élargir nañ yokk bureau yi nañ ko élargir nooy wuteeg fi ngay jubali am na solo waaw kay waaw loolu moom wax dëgg ñaax la boo xamante ni mobile wax na ko ci CNG bi macha allah mu nekk ay kàddu yoo xam ni kàddu yu am solo la. maa lay jaajëfal bu baax. jaajëf baa ji looy tàggu. waa li ñuy tàggatoo rek mooy di santaat yàlla bu baax a baax a mm-hmm. baax. Mm-hmm. ginnaaw bi ñu ko defee ci bisimilah rahmaani rahim yeggalee ko ci alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. ah di wax ne kàddu yi lépp loo xamante ne dëng na ci. nañu réew mi jéggal xam ne suñu matadi la mais hmm. lu ci jub rek nañu xam ne ndimbali suñu borom la hmm. ñu ngi jéggalu ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp ñu ngi nuyu Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di lancer waat message suñu rakk yëpp ne leen jóguñu pour xas leen jóguñu pour xeebal leen li ñuy def di ci lijjën seen bopp mais damaa dem ba xam ne ku am sañ-sañu ne saaga ndey mun nga cee am xaalis wax dëgg yàlla boo góorgóorloo liggéey am ndax hmm. saaga ndey li gën a jafe xool koo xamante ne lépp ci àdduna moo lu ko bu ay pexe moo lu ko bu dee sañ-sañ moo ko bu dee connaissance si réew mi moo la ko ëpp sànq laa gën a yomb nga saako nga am fitu saako ko te xam ne am nga pexe yoo war a mën a def ba génn ci. Hmm. pexe yooyu boo ko lalee ci liggéey am xaalis. Hmm. nañ dem liggéey te bàyyi loolu noonu baaxul. jërëjëf jaajëf. am na solo mbokk yi mobile 2 lañ dalaloon bu Grand Yoff di ko wax ni waxtaan bi am na solo di ko jaajëfal bu baax ci disponibilité am mbokk yi dama am benn tiis boo xamante ne dafa dal suñu koñ mel ni maire boo xamante ne ku baax la woon mu yaay bàcc yàlla suñu borom jëlee ko fi. ñu ñaan yàlla na ko suñu boroom yërëm te xare ko àjjana te yéexuñu di ko jaale ci mbenn faal pap seen mama ak képp koo xamante ni ci njabootam la bokk ak maga ak ñëpp di leen wax ni nag yàlla na leen yàlla may xolub muñ euh, gën a metti la amul gën a bees la rek moo am fépp fu leen seen waajur bi tolloon yàlla na leen suñu boroom toll fu mel noon di leen jaajëfal bu baax mbokki di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew la jërëjëf Thank you.